gis am na ci juróom-benn yoo xam ne ay jigéen la ñoo yéen kaay gi ne ana sunu kilifa yi ana autorité yi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ndax mbooloo mu toll nii nan lañ mën a dajaloo ci seen biir bay dem te kilifa yéeguñu ko loolee ci boppam moo jara lijjante yéen kaay gi ne na jamono ji mënatut a ñàkk ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ñu andi ci ay solution ndax xale yi mënuñ leen di leen bàyyi maanaam ñuy jël gaal gi di dee ci biir ndox mi yéen kaay gi di sudi ko di jenqi duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum barça gi ak na ci diwaanu Mbour Saint-Louis yoo xam ne nga xam ne ñoo fay jëlee gaal gi di départ wuute ca bëri na nga xam ne ñooy kilifay réew mi ñoom nag nee nañu woon lépp loo xam ne jëm na ci wàllum saytu géej gi wàllum sécurité wàllum surveillance ba kenn jël gaal gi danañu ko def waaye nag gis nañ ne ba léegi maanaam mbir mi ma ngi commencé yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy faral di jël gaal gi bëri na loo xam ne nee nañu moo ko waral ndax am na ñu bari ñoo xam ne ne nañu bateau étranger yi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi ñuy napp ci biir géej gi bokk na ci li ko waral tax ñi nga xam ne ñooy pêcheurs yi nappkat yi di jël gaal gi waaye tamit lu jëm ci wàllum ñàkku xëy gi ndax bëri na ci réew mi ay xale yoo xam ne amuñu liggéey nekk ci jafe-jafe yéen kay gi di enquête nee na ONG Greenpeace ñoom nag nee nañu jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci réew mi ci lu jëm ci wàllum économie wàllum kooma bokk na ci li ko waral bokk na ci liy puusa ndaw ñi ngir ñu jël gaal gi yéen kay gi di libération xëy duñu xibaar nan ñu Kafountine Kafountine nekk ci département bu Bignona bëri na ay départ yoo xam ne diwaanu Kafountine la ñuy déparé rawatina weeru juin ak weeru juillet yéen kay wi nga xam ne ñu yeewoo ci diwaanu Kafountine ñoom nag nee ñu leen war a jàppale maanaam dara moo ci amul ndax yoo xam ne bu Sénégal daf ko war a def ca Kafountine ndax bëri na fa ay xale yoo xam ne jamono ji amuñu lenn am na usine jën boo xam ne ñoo ngi ko doon wax ca Kafountine 2016 ba léegi maanaam dara amu ca xale yi ñoom ci diwaanu Kafountine dañoo amutul espoir yéen kaay gi di Rewmi Quotidien Ousmane Sonko nee na coow li li bëri bëri maanaam Macky la xale yi nga xam ne moom ngeen gis ñuy jël gaal gi di dem ci bitim réew dem ba ñàkk espoir loole dafay firndeel ne président dafa la ji ci lu jëm ci wàllum bi nga xam ne maanaam woote woon na ko ndax ci biir réew mi bëri na liggéeyuñu chômage baa ngi mel ni tulleeg màlle ak ñenn ñoo xam ne ñoo ngi dund ay jafe-jafe ci réew mi Ousmane Sonko nee na nag a li nga xam ne mooy priorité yi maanaam Macky Sall daf koo teg fële wala daf ci am njumte te nag Macky Sall bu bëggee nekk ci réew mi di xool kan moo koy wuute ci bopp réew mi loolee rek mën naa dugal Sénégal ci jafe-jafe yéen kaay gi di évidence L'Évidence nee na jafe am na ci réew mi ndax lu toll ci ñetti téeméer ci ndaw yoo xam ne maanaam ñoo dugg ci biir ndox mi réer ci biir ndox mi njiitu réew mi di président Macky lan la defal ndaw ñi fukki at ak ñaar yi nga xam ne moom la nekk ci bopp réewum Sénégal loolee mooy laaj bi lan la Macky Sall def ci douze ans yi ba xale yi mën a toog ci réew mi biir journal bi di Évidence nee am nay kuréel yoo xam ne tegoon nañ ko ci réew mi jëm ci wàllum jàppale ndaw ñi jëm ci wàllum financé ndaw ñi kuréel yooyu ana lan la ñuy jëriña lu ci mel ni DER ANPEJ ak PONSIPA yéen a kaay gi délibération maire bu Kafountine di David Diatta nee na daaw ci waxtu ñoo xam ne doon nañu jéem a dem ci bitim réew ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp la ñu boole woon daal di suula yéen moo fa lakkoona lu ëpp jàppale yéen kaay gi di Direct xëy wax ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal bi nee na juróom-ñaari weer moo ci des waaye nag ñi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Pastef ak waa PDS ba léegi ñoo ngi wër kan mooy nekk candidat benn Bokk Yaakaar bëri na ci ñoo xam ne ñoo ngi laaj jamono ji kan mooy nekk candidat bi Benno Bokk Yaakaar mën na ñoo am ay jafe-jafe ngir gagné élection yi ndax na dañoo waajulul seen bopp ci lu jëm ci wàllum plan B bu dee ñi nga xam ne ñu Pastef ñoom nee nañu fukki fan ak juróom danañu investir Ousmane Sonko waaye ñi ànd ak Sonko ñoom leer na leen ne bokk Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 mën naa tax suufa am na ñaari dossiers yoo xam ne koy xaara te Ousmane Sonko soo li nga xam ne moo daloon Karim Wade élection présidentielle 2019 moo ko nar a dal yéenekaay gi nee na bu dee Karim Wade waa PDS ñoom candidature Karim Wade bi ba léegi dafa menacé woo journal bi di Walf Fadjri nee na en tout cas lembade sall cadre yi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi di passé bëri ci ñoo xam ne jamono ji caabi féete na leen ku ci mel ni Birame Souleye Diop Fadilou Keita Bassirou Diomaye Faye Bilal Diatta El Malick ak Ousmane Sonko jamono ji ñoo ngi ci contrôle judiciaire yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na Birame Souleye Diop démb la ñu ko yóbbu ci ci réew mi ci lu jëm ci wàllum dellu siwaatu Karim Wade maanaam retouru Karim Wade jamono ji am na wàllu deal politique boo xam ne ma ngi koy am diggante Sassou Nguesso Mohamed Sis ak émir bu Qatar jamono ji ñoom ñett ñooñu lu ñu mën a ñoo koy def ngir nag lijjanti mbiri Karim Wade yéen kay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu kan mooy nekk candidat Benno Bokk Yaakaar en tout cas li am ba desal duel jamono ji am na diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo bi jamono ji commencé na mbir maa ngi mel ni tulleeg male influenceurs yi jamono ji dugg nañu ci wàllu gi nga xam ne moo am bi nga xam ne ñooñu Amadou Ba ak ñooñu Abdoulaye Daouda Diallo ñoo ngi koy teg journal bi nee na ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk ko gère dëkk ca diwaanu Podor ñoom nag nee na ñoo Abdoulaye Daouda Diallo ko luwaa yàlla jëmale ko xam ne digganteem ak Macky Sall amul benn ñegas-ñegas confiance moo ci am li am ci journal bii de la témoin nee na candidat Benno Bokk Yaakaar Arona Dia Abdoulaye Daouda Diallo ak Farba Ngom ñoom ànduñu ci Amadou Ba yéen kay gi de la turbine nee na néegu Macky Sall ma ngay lakk ndax ci biir APR maanaam lu ëpp fukki ñoo xam ne nee nañu dañuy nekk candidat ngir wuutu Macky Sall journal bi ne nag jamono bi commencé na diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda ndax am na yenn responsable politique yu APR yoo xam ne ñoom pare ngir défier Macky Sall maanaam pare nañu ngir lu Macky Sall wax ñu jël ko sànni ko ci àll ba ku ci mel ni Mame Boye Diao bu ne candidat la bu mu leen bett bu ko Macky Sall sante mu bañ koo jëfe tamit bu mu leen bett yéen kay gi dala témoin na député yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar démb ñoo ngi woon ca palais ba ñoom nag nee nañu mbooleem li nga xam ne ay projet de loi la yu tukkee ci dialogue national bi ñoom